mën ko dégg Saint Paul ñu ngi ñëw bien sûr prières de Notre-Dame et de la Cette joie des paroissiens, de Saint-Paul, du Saint-Paul.

mooy santal bu baax sama xol day set nag bëgg na ma wax ci dara ndax ngir mën a yàlla. popo mi fa yasina popo mi fa yasina bangana la la la la la la la la la Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos.

إلى بعيد ẹsẹ̀ súnmọ́. Ayọ̀ ìṣòwò lọ́wọ́ ọwọ́ fọwọ́ rẹ̀ ti lè ṣe súnmọ́. Fọwọ́ ìdìbò tó ṣòwò ọwọ́ fọwọ́ rẹ̀ ti lè ṣe súnmọ́. Fọwọ́ ìdìbò tó ṣòwò fọwọ́ lọ́wọ́ ọwọ́ fọwọ́ tó lọ́wọ́ ọwọ́ fọwọ́. Alábọ́dá aláfọ̀yà aláfọ̀bàṣà kòkòrò. Lọ́wọ́ rẹ̀ sọ̀rọ̀. ثم إلينا ثم بما نزور بما نزور بما نزور بما نزور sọ́mọ́ sọ́mọ́ ló pọ̀ pẹ̀lú sọ́mọ́ ló pọ̀ pẹ̀lú sọ́mọ́ ló pọ̀ pẹ̀lú sọ̀rọ̀ lójú tó máa ń sọ́mọ́ sọ́mọ́ sọ́mọ́ tí mo pa sọ́mọ́ sọ́mọ́ sọ́mọ́ sọ́mọ́ tó tó pẹ̀lú sọ́mọ́ ló pọ̀ pẹ̀lú sọ́mọ́ lójú tó máa ń sọ́mọ́. Come on, come on, come on,

عزيز حال جوش عزيز ما Mari kita tidak berpasangan.

Atmos, Dios, Dios. No, no, no, no.

L'attente de Congo. Euh, C'était difficile, il y avait la chaleur. Qu'est-ce qui vous a motivé Alors, Marie. Ah bon oui. Alors, comment, qu'est-ce qui explique aujourd'hui Vous êtes arrivé, mais c'est comme si vous n'avez pas marché des kilomètres. Qu'est-ce qui explique ça D'accord, voilà. Ah, parce que maman m'a dit Alors, comment est-ce que vous. Merci de présenter d'abord. Vous, vous, vous, comment vous appelez Vous waaw euh, maa ngi tudd François Bass maa ngi bokk paroisse Sainte Élisabeth de Mbour. lan ngeen dundee marché bi. waaw marché bi moom macha allah neex na xam nga moment Maria boobu bu mu wóor rek macha allah da nga koy demee ak nit lan moom ñu jàpp ne dafa tànn waaw waaw waaw climat mais tey climat moom franchement xaw na tane waaw marché bi moom macha allah marché nañ ci jàmm moment Maria si yoon bi marché nañ ci jàmm voilà. merci. vous appelez comment et vous Roland Caboret, paroisse Notre-Dame des Anges, Moro du RIP. Comment est Nous avons très bien nous avons eu des moments de pause et tout était mis à notre heure pour que nous puissions bien arriver ici. Alors, le climat qui n'est pas favorable, c'est très chaud. Comment vous avez trouvé le courage pour pouvoir arriver Vu l'ambiance et les grâces nous attendent ici, nous avons trouvé les forces nécessaires avec l'aide Notre-Dame du Sacré-Cœur, dame de la Délivrance pour y arriver. Merci. L'espoir de Marie Immaculée. Vous avez marché Je vais marcher la paroisse Notre-Dame de Fatima de Kungel, dans le diocèse de Kaulak. Avec la soutane qui est bien campée, on a vu que bien ça a été compliqué. Comment vous l'avez vécu dans une démarche de foi, vu que j'ai fait six ans sans venir au pèlerinage parce que j'étais aux études. Donc, c'est pour moi une joie intérieure d'accompagner les jeunes jusqu'à de Koungheul jusqu'à la grotte ici. Et comment vous avez fait pour gérer la chaleur de la chaleur de ce côté, pour nous c'est moins, parce que vu euh, le côté du salon, la chaleur est extrême. Donc arriver ici, pour nous c'est un soulagement. Mais tout, nous le confions à la Vierge Marie. d' accord euh, mën nga ko wax ci olof rek nan nga dundee kii bi marche bi. marche plénaire bi ñu ngi koy dundee ci euh, ngëm ak tegu ci yàlla ni ko thème bi waxee rek comment se fait-il que la mère de mon sauveur vienne jusqu'à moi donc nous aussi dans une démarche de foi. tàkku ci suñu ngom ñu yéen tam dox ngeen ba ñëw si waaw tàngoon loolu leen dundee tàngoor bi ak coono. tàngoor bi dama ne tàngoor bi jàpp ndax ñun Saloum la ñu jógee te ku ne saalum da ngay wax tàngoor donc fii pour ñun dañoo ñëw rek gis ngëm ak yaatu gis xale yi gis xale.

mbokk yi cant ak ngërëm ñeel na leen ci seen uh, teewlu bi la jotaayu xibaar ci marax di ñu koy tàmbale fii ci bërëb yu sell yi di Popenguine ngeen di seen sama ginnaaw rek lii di village des marcheurs ginnaaw nag yegg si ñi nga xamante ne ni uh, ñoom ñooy lekk marcheurs marcheurs yooyu nag am na ci anam yoo xamante ni rek noonu la ñu yegg si fii ci biir Popenguine laata rek uh, ñu wëyal bi la jotaayu xibaar ñu bàyyi leen ngeen xool tey ji seen yegg si ak pas-pas bu mat bi nga xamante ne ni moom la ñu àndaloon ba noonee ñuy ñëw ci tànki Mariama Yeah. ñu ngoog mu nekkoon nag anam yi nga xamante ne ñoom marcheurs yi noonu rek la ñu fi daal di yegsee euh, ñu wëyal des ak ñoom ndaxte xam ngeen nag ne ñoom ñi lekk ndaw bokk na ci nag tey ji euh, pas-pas bile bu ñu seetlu tamit ci paroisse Marie Immaculée des Parcelles Assainies ñoom ñi nga xamante ne nag ñoom ñu ngi fi teew ak lu ëpp rek ñaari junni ci ay marcheurs ñoom ñooñe euh, ci seen biir marché ren ji rek seetlu gi moom mooy nag jot nañ ci ànd ak kilifa yi nga xamante ne ni ñoom ñooy yeewoo ci boobeleeke gox naka rek lañu fi daal di yegsee ñu teewlu leen beneen paroisse ah dox bi neexoon na piree nañ si jàmm woy nañ si jàmm ñëw nañ si jàmm te dañuy ñibbi si jàmm jaajëf 2040 marcheurs chaque année plus de sept ans la woon fa woon moom Amady rek la ñuy toog moom rek la ñuy ñaan ah pula mi baax la doo xool waaw doo xool waaw maa ngi si jàmm bu baax a baax waaye saa ni Mariama seet nañu lépp lu ñu waroon dox ñu dox yëpp neex na wooy nañ aziko nañ prière nañ lu bëri ñëw nañ yegg si nañ si Popenguine jàmm ak salaam nii man ci jàngu bi laa bokk quoi Émile François Gomis ko wax kenn waruma fi jiitu quoi te naka dox bi waaw ça va ah da ngay pas-pas bu baax waaw waaw yaa ju sell ji ndey ju sell ji kenn du moom waaw mbégte rek waaw merci